Hello chers internautes, ravi de vous retrouver comme ni ñu koy defee ci les grandes éditions avec les grands événements ça fait un plaisir euh, de vous retrouver ñi ngi fi nga xamante ni di King Fat Place ak kan moo woote muy Aïda Samb di gawlo bi xale bi nga xamante heure bu wooyee ñëpp kontaan fas def euh, soirée de gala bu ama ama am solo di ngeen dégg way di ngeen dégg tay taasu tay di ngeen dégg la mam ya mënon tey nañ ko gis ci xalé bi en exclusif et l'intégralité fi rek la sur Dakar Instant ba tax na yéen ñi nga xamante ne ñuy bàyyi xel partout Scotch Lane

macha allah mu doon koo xam ne Sénégal tey a ñëpp ko nawloo papa ñu ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar maa fii. di li nga sañse lan la. waaw naa dama ubbi armoire bi rek mu daanu. te da nga def nag lu am classe bleu baxa ak bleu bi. waa xam nga ne ñun ay géwél lañ te sañse moom. Eh, géwél moom faaw mu sañse. <laughs> voilà ñu tey tey ay géwél ngeen mu nekk bisu géwél bisu gawlo kii Aïda Samb pour toi. Aïda mooy doomu ndaanaan di doomu gawlo ndaxte Aïda. Alaaji Samba Jabare sama mam rek doyna ndanan ndaanaan Alaaji Samba Jabare eh, Alaaji Amadou sam, Samb Alaaji Nar sam, Alaaji Ali Batou Mbuub Alaaji Mor Dior Seck Assane Morokoy Samb Kumba jangan pap Mansour mbay ndanan yoy les grands griots ñoo ñoo men meñ ayda motax ayda wax ci mom dina yomb té eh, mam Alaaji Samba Jabare musna deg mu wax ni li ci mom ayda ko nar a doon te bien vrai que ayda doon na mam ndax li ci mam nak koy jël ay da mu woy rek neex na xool ba mu tàmbali na gën lu mu woy rek it la kon Aida euh, loolu la nu mën a wax ci moom ndaanaan la daal ndaanaan ndaanaan la doomi ndaanaan la. macha allah ok ayca papa Aida woy bu am solo muy dalinkoor mu mm. duppee ko jéeg bi say jéeg bi mu jéeg bi toog ci këram mm. waaye dafa mel ne jamono gi woy bi mi ngi tas kër yi. non mi ngi defar kër yi. Mm. xam nga woy woy neexul de woy neexul lam lay fàttalee neex. neexul lam lay fàttali moo neex. Mm-hmm. xam nga ku mu tas sa kër rek mhm. xoolaata si bopp mais wooy bi dafa war a defar mhm. parce que dalinkoor mhm. mooy ki nga xam ni dafa ñëw ci kër gi dara nekk fa mu xaar fa dara fekk ko fa di nga dégg xale yi di wax naan kër goo romb karo rafet peinture ba melax jeeg fa jiitu xaw naa dee kooku mooy dalinkoor dañ naan dalinkoor nga bëgg ni koor nga bañ ni koor maanaam dafa metti mu toog te sey neexul dafa metti moo tax ko dégg ñu ni kii dalinkoor la rek xamal ni la mu daj lolo tax way wi mhm. dafa wara defal jigen ju nek da nga ñaar da nga wara don doon dalinkóor mhm. mais senegal nak legi xam da dañuy challenge. Mhm. du ñew ñu tendance ko. en tout yi ñu ngi ciy gaaral de. te lolu lolu moy jaay njëkke loolu xanaa xamoon ne la ci fu muy sey <laughs> non njëkke lolu yaakaar ni jaboru chamagne mom lay la fu mu na fexe don dalinkóor rek. momit ay njëkkee mat ñomit ñi ngi naan mom lay walé vice versa la de la rek. yéen la rek. en plus mu nekk ndaw dugg ci néegu sëy te ba léegi mu ngi continuer li nga xamante ne mooy musique am ndax loolu yomb na. non yomb na parce que doomi géwél sëy doomi géwél da ngay sëy ajab ki ne la maam Bamba ñaata at la def ak ndongo Thiam dogo 40 ans de ménage ñun ñi suñuy soxna ay 35 ans de ménage lañ def ak ñun. xam nga géwél sëy moom bu ñu ko waxee géwél mm-hmm. ñëpp ak ay sëykat lañu. ñëpp ay sëykat lañu mais géwél dafa mën a sëy mm-hmm. jigéenu géwél dañu mën a sëy mm-hmm. yàlla nag bu ñëwee ak i dogalam kenn mënu ci dara. mais loolu loolu mooy li mu war a def ay dafa a toog sëy chère jëkkëram chère liggéeyam comme ni muy xëyee di liggéey ak tey woy la ko yàlla nattoo muy def musique jëkkëram ci la ko fekk comprendre ko ci loolu et di ko ci teral bëgg ko ci noonu vraiment dañuy ñaan yàlla rek yàlla na yàlla suñu borom sàmm diggante bi yàlla def ci njaboot gu barkeel ñu muñalante rek jigéen moom ku ko yor da nga koy muñal ndax yéen yàllaa leen teral yéen ku leen teral yàlla teral ko jigéen dañ koy teral jigéen gis nga góor gi la gën a mën a teral jigéen moo lay ëpp mucc moo lay ëpp wërsëg jigen dañ koy tere man yeen la faral de hmm. mais ñi ni boy ni góor ñi ni ni ni xam la lañ man hmm. nga dee ñu doni di sa jabar nga dee ñu suuli la bonne nuit. ma ñew seetaan ci suma jigen la suma jarbat la sax ah, ndax suñu ñaari mam ya bokk ndey bay baay muy gawlo hmm. bokk ci askanu mak mëna way lol nak bu koy ñaanal yalla yéen tek Serigne Touba rek bésam bi yalla nako jik yalla nañ jik layam ci barke cheikhul khadim man nak dama ñew uniquement.

xam nga ko président Macky Sall. que ñu bari dañoo waxoon ne yéen ñaar seen diggante. dafa nit ñi dañuy wax lu ñu xamul man dem rek maa ngi moom noo nekkoon nit ñi dañuy wax rek bàyyi leen foofu nuy coow. ndax présent man troisième mandat kooku day toog mille mandat ngay wax man troisième. muy toog mille mandat. moo fi gën. Macky Sall la fi waaw ba mu saf sàpp. troisième mandat nag. waaye bàyyi bàyyi troisième mandat kooku mille mandat yow bi nga naan troisième mandat kooku ban troisième mandat kooku mille mandat lay def maa ngi leen di fay la kër doomi sëñ Abdou Karim Mbacke ju baax jeeg na maa ami ah. waaye tey nag ajatu ngoy faala nu yoon ni mu alaaji Askiya Touré ma ànd ak Astou Diouf ak Ngoy Mbay tabarkàlla macha allah Askiya dañ ko tudde nag bis bi mhm. mu yaayi ay samb di yimpaañam di léppam mhm. mu yónni ñu nag mhm. ñu àndandoo tabarkàlla macha allah bëgg a ñëw toog ci taabal ji rek buñ ko woyee ñu jóg lu ñu ko wax rek ñu xam ne wax nañ ko garmi ku ko woy rek way ku baax ku ko bàkk nag ñëpp jóg mooy xaritu gépp alaaji askiya moo am fu mu dem te kër ga kenn newu fa loolu rek moo ko teree ñëw xam nga moom bu askiya génnee du génn day toog rek xaar ko te kër ga mais seen seen association kaay baax hmm, soppe ajatu ngoy faal def nañ ci ay mbootaay tabarkàlla macha allah projet yaa ngi dox hmm. waa banque yaa ngi financé ngoy daal xam nga lu mu nar hmm. jàppale jigéen ñi tabarkàlla bëggul benn jigéen am lu ko naqari fi mu ne nag mi ngi waajal le 7 mars ci ministre de la femme Fat Diané da ko cee jox mobilisation bu rëy ni ko won naa tàllal naa la loxo mu ne ko man ku ma tàllal loxo te baax ma tàllal la loxo ndax kaay baax la woote. ça va merci beaucoup maa ngi leen di ziar avant tout animatrice 7 maa ngi macha allah foofu di doxal sama waar ngay sama naataango dinaa kontaan nga jox ma micro bi. Uh-huh. ngooy nag moo ñu a jóg uh-huh. macha allah day nit ku baax di jigéen ju généreux mën say sëy nangoo sëy ba pare yërëm jigéen fonk jigéen fonk boppam di ñu wan nan laak naka la fekk ñu xam ko macha allah xam nga boobu ànd day neex macha allah tabarakallah tey nag bisu Aïda Samb bi ñor ko trop mu woo ñu nag association kaay baax ñu juk war a ñëw rek sargal ko def ay jongoma xam nga dafa jongoma te man Ngoy Caali laa tudd kon bu Ngoy Faal ñëwul mel na ni Ngoy Faal ñëw na. dëgg la waaw euh, macha allah nag ngeen baal ma ñoom ay nit ñu baax la ñoom ñaan baax jërë ngeen jëf. Allez, allez, allez.